jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi seetaan seen site bi naan euh, seen buzz flèche bu rouge comme ni leen koy waxee saa su ne ngeen bës mu def bleu yaa ngi ci biir image yi bépp vidéo bi actualité moo xam xew-xew réew mi euh, yaakaar naa euh, di ngeen ko jot gis ngeen sax li xew ko waxtaanee amaana ci seen bës ngeen ko njëkkee gis muy mariage kii ñu naan Mbathio Ndiaye boobu ngeen xam ni moom la tey nit ñi xëyee tey mu doon loo xam ni ñu ngi ko ciy ñaanal yàlla yàlla na ko jik mu nangu caa toog ëllëg moom ci ay doom tey ci moom ci wàllu cosaan mooy wàllu li xew fan yëpp nit ñi di ko waxtaanee muy soxna suñu naan soxna Aïda Diallo euh, tey rek am na lu xewaat tey jii que ba léegi dañ koy xambu que ni am nuy borom xam-xam sax yu commencé génn naan kenn mënul ko dara. te alors que tey yoonu Serigne Touba googee kii ngeen di jàkkaarloo it ginnaaw di taalibe Serigne Babacar Sy am na cëri ci Cheikh Samba Diarra Mbaye. day bàyyi nga nuyoo. asalaamaaleykum mbokki julliti maa ngi leen di nuyu di leen balwaq te di leen balaq ñoo ñëw ci man bokk di waxtaan yëpp di wax ci affaire Aïda Diallo di ñaanal réew mi yëpp jàmm di ñaanal njaboot gi di ñaanal it sëriñ su baax si nga xam ne ñoo nekk ci réew mi muy waa kër sëriñ Touba waa kër Alaaji Malick waa Laayeen Ñaseen ñoom ñëpp maa ngi leen di ak waa Njaasaan di leen balwaq di leen dalal di leen tatagal di leen ñaanal jàmm yàlla may leen gudd fan ak wér ak seen njaboot yal nañu ko yàlla. ci ñaari at yi ñuy ñëw mooy wàllu màggal bi dañu gis ni ba léegi ndaw si day fësal boppam di wane ni li muy def dañ ko koo sant te de euh, for nañ ci woyu béy ngeen nañu euh, Serigne Mountakha mooy Serigne Touba Serigne Mountakha borom ree ju baax ji mooy lépp tey lu mu wax. loolu la donc mbir mi lan lay nuru tey for nañ nga ni déggal naa ko loo xamante ni si ñemewuma ko tudd waaye dinaa ko wax. dinaa ko wax ndax moo ko def. te it àddinaa ngi koy jay te it dërëm a ngi koy jay ndax nit lu muy dugg lu ne da ciy ànd ak ndigal te ndigal lu baax la te waa kër Serigne Touba ñoom ci ndigal rek la ñuy wéyee comme ci ndigal la ñuy wéy nun ñëpp ci ndigal la ñuy wéy na ko teg ci yoon teg ko ci ndigal waaye lii nga xam ne mooy def lu mësul am ci bañ ba nu juddoo ba suñu jonni tey amut ci Alaaji Malick amut ci sëriñ Touba amut ci Laayeen yi amut ci xaadir yi amut ci ñaseen léegi yéen sa njëm bopp nag jigéen ju ne léng ne day tudd doom jigéen ju ne léng ne nañu ko bàyyi mu doon sëriñ ah lu dikk nga ne maa ak moo jur gaag fos yaag alal di yëpp nga di ko xëccoo moo wa naa doon na sa baay doon na baayab jàmbur loolu fu mu am amul fenn doon na sa baay doon na baayab jàmbur amul fenn soxna Aida Diallo teggil sa tànk nag ku dëgër boppam. toog dégg ñu ne am na ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaawam nga ne ñu déedéet. dafa topp su bakkanam moo topp bakkanam rek waaye kenn topp ci ginnaaw moo topp bakkanam xanaa nag mi ah, nga xam ne moom ci jëmmi boppam mooy mooy waru garam di ko def mm-hmm. te nga xam ne moom la bëgg di ko def ah yàlla àndu ci yonent bi àndu ci kenn àndu ci Serigne Touba àndu ci ak waa këram. gis euh, fu mel ni États-Unis démb vidéo yaa ngi daw ci internet bi bokk na sax ñi ko wane fii mais euh, ngeen gis yeneen taalibe yoo xam ne ñu ngi wone naan soxna Aida Diallo ci yow lañ topp ci yow lañ ginnaaw peut-être loolu la ñuy mën a tuddee maanaam ñoo xam ne ñoo topp ci ginnaawam di ko dooleel. réer moo ko def ndax lenn li réer la ndax ay waa ji ñetti fan yi bàmmeel luy am lay te lay dikk mhm. te it nag danoo daa réer ay da réer nañuy topp ci ginnaawam dañoo réer mhm. waaw ñi topp ci ginnaawam dañoo réer ndax àddina waat jigéen da daan jiit euh, góor da daa jiitu jigéen topp. Mm-hmm. waaye jigéen ne léegi ne man lii ma wax ndax dëgër bopp ak topp sa bakkan topp sa naf loolu du yoon de. ku mel ni Serigne Mountakha tey maanaam ku ko xool gis Serigne Touba ak euh, reetaanam ju neex ji am na ñu naan sax Serigne Mountakha xamul lu dul lu baax. koo xam ni tey amaana tey jullee na sëñ Mourtala jullee na presque doomi Serigne Touba yi ñi ñuy faral di dégg ci luñ ci dégg que ni ki nga xam ni kii nit ku yàlla baaxal la tey lan nga ñu. wax ci moom kooku mooy yaakaari jaam ñi ëllëg ndax nag wax dëgg yàlla doomi Serigne Touba la tërub sëñ Touba lu mu wax la ñëpp war a wax képp kuy murit rek toppal ci ginnaaw si sëñ Mourtala waaye man de Aïda Diallo ñeewuma ko. ñeewuma ko de waaw ñeewuma ko ndax sëñ Mountakha waa kër sëriñ Touba dañoo war a topp ci ci ay ci soxna ci Serigne Mountaga Mbacké sëñ Mountakha ba yëpp nañu topp ci Serigne Mountakha mi nga xam ni moo fi Serigne Touba. mooy si Serigne Touba tey moo fi taxaw taxawaayu Serigne Touba képp koo xam ne dindi ngay sartam dindi ay waxam ku ànd ak yow rek dalaa nax képp koo xam ne yaakaar nga ko na la leer ne génn nga ci sëriñ Touba ak lom maanaam dafa mel ni xaalis. moo lalu ci mbir mi parce que du xam-xam du diine du lenn lu dul da nga fa doon sëy mbir mi jeex nga ni da ngay ut ay taalibe teg dafa mel ni koppar da ci laxas koppar ci laxasu kay mayum oto beeg kër meeg mel ni tulleeg mali te alors ko Sëriñ Touba wóortuwul loolu déedéet Sëriñ Touba de moom jiitalut woon lu dul jaamu yàlla te képp koo xam ne yaakaar nga ko ci jaamu yàlla lañ nga xam sëñ mun Muntaxa mi nga xam ne moom la fi Sëriñ Touba ba mu nekkal fi Sëriñ Touba jiitalut alal xoolut ci alal dara lu du diine rek diine ju nekk nag mu teg ci loxoom ba def jub ak jubale ak njabootam ak ñépp ku nekk xam na ne sëriñ sëñ Muntaxa ku baax la ku mën a booleeg bokk njeem sëñ Muntaxa moo toog taxaw Ablaay Wadd jubale ko ak Macky Sall jàmm am ci réew mi am fépp wallaay kookoo jara topp moo jara waxal Euh, léeg-léeg sax euh, maanaam comme ni ñu ko waxee bala ñuy ñëw sax ci soxna ci parce que nee nga ñu am na loo ko gisal loo xam ni lan nga gis ci moom parce que nee nga da nga yëngu ci wàllu xam-xam di seet am lu la yàlla may te waxoo comme seetkat yi ñuy doxalee déedéet da nga ne li ma waxantuwuma ko gisal naa ko loo xam ne ci li kaw li muy def bu reculé wul musiba dal dana am musiba mu ko dal dafa xamul nag te su xamul mbaa mu am képp dara newul ci ginnaawam te bu ko bàyyiwut dina am loo xam ne dina ko gis te bu soobee yàlla bu ko gisee lu jafee dindi lay doon gis nga. Mm. ay da bàyyi li nga jiital alal du dara fii la nu koy ba. Mm-hmm. kër yu baax yeeg tabax yu baax yeeg lépp fii la nu koy bàyyi wuy ji yàlla sunu borom. yenn ci yenn ci seex yenn ci euh, jabaru seex bee yi tamit ñenn ñi dañoo dem dëkkali ko maanaam dafa mel ni dafa am xamb boo xam ni ñooñu dañ ko ciy jay tamit naan ko. dara sëñ bi yow la wax ni yaa ne. loolu dafa mën a ne ana naka la di doon bàyyi doom doom toog. jabar di doon jom toog fu mu am amul fenn ay de ñii topp sa ginnaaw di la wax di la xamb dañ ngaa xamul te ñoom ñiy wax ak yow xamuñu waaye li ma gis ci yow boo ko bàyyiwut li ma gis dina dal ci sa kaw te kon bu neexee yàlla ak yonte bi di nga xam ne wàllu yoo dal. Euh, yenn ci doomu Serigne Touba yi soxna yi dafa am lu ñu jaaxal doo toog ba dégg kenn ku ci yëngal wala ku ci woote dara lu may ñoom ñëpp topp nañ ci ginnaaw sëñ Mountakha xalifa bu taxaw rek topp na ci ginnaaw te def lu kenn doomi sëñ Touba sëtub sëñ Touba ñëpp topp ci ginnaaw Muntaxa sëñ Muntaxa yow sa wala jàpp sa jëmmi bopp donc nga ne yeey taalibe nga won nga won sax taalibe nga won lañu la wax waaye doo taalibe ndax boo doon taalibe dëgg di nga topp ci ginnaaw sëñ bi di nga topp ci ginnaaw sëñ bi waaye nag wér sa wérul bopp yaa ngay tudde doom barki démb rek laa la romb ngay ngénte nga tudd doom naa tudde naa ko soxna Ayda Diallo mbegum sëñ Saaliw sëñ mbegum sëriñ Becco soxna Ayda Diallo mbégum sëñ Becco kër gi ñu ko tuddee ngi fii maa dem ba ca kër ga gis doom ji léegi dafa am ñaari affaire yu xew léegi ci réew mi avant ñëw ci wàllu xam-xam bi bu ñuy njëkkee mooy euh, sa doom euh, sa doom la wala sa sët la rek Ablaye Diop xaas moom it day yëngu ci wàllu sët nga ni xale yëpp samay doom lañu ku ci nar a ku ci nar dëng sax ma jubbanti la alors mu takk sa doom bi naan sumbulu euh, coow li mel li nga borom xam-xam yi ci wax ay ñoom xanaa dañoo xamul ndax yi bi ngay nooyi sax amal xer ñaar ndax dina wàccaat yonentu bee ko wax ngay wax ci sëyib jàmbur yenn yi day nuru leneen beneen bi mooy démb li nga dégg ci wàllu mbàccu mi nga xam ne maye nañ ko léegi ñuy faral di fësal yenn som yi ñuy jël di ko maye lan la lépp lépp lépp ak réer la ak cat ndax sëyib jàmbur yàlla moo takk sëy ci aras ku mu wax ne rek mooy ànd jigéen bu nee jëy dañu ne képp ku bëgg képp ku bëgg rek di nga ci jot sëyib jàmbur bii ñuy dox di wax nag muy soxab sëyib sumbulu bii ñu di ci dox ñee ngi naa du yàgg ñee ngi naa du am ñee ngi naa sëy yaana ma loolu musiba la ku koy wax yaa ngi sa doom sa doom sëy woon tey du yàgg ñaanal leen jàmbur bi mu yàgg ci sëyam a uuf ci njaboot yàlla may ko ci njaboot mbaacu mi nga xam ne moo dugg mhm. ñu di ko door a may cooli neeti kur bàyyi leen sëyi jàmbur yi mhm. te yàlla tax mhm. yow doo yàlla doo yonent bi dégg nga nit ku baax day wax lu ko wóor nit ku baax day wax lu am. te it yow mi nga xam ne yaa ngi wax te li ngay wax leer na la ne li ngay wax dëggut am na ku nekk. te xale yu jigéen ñaa ngi fees dell ci réew mi ku ñëw si yow na la mer damaa bëgg nga ñaanal ma am jëkkër doomi jàmbur sëy nga ne lu tax muy sëy. tax muy sëy doomi jàmbur di sëy nga ne lu tax muy sëy te nit ñi ñëw naa damaa bëgg jëkkër ah rabak lépp ku jóg ne damay seet ku jóg ne damay seet. may million nga ni wërsëgam la. waaye it li ñuy fësalit nañ ko bàyyi parce que jamono dama ñëw puukare ku nekk la nga am lépp nañ que ba pare xëy naan dañ ko doon def nangam sangam est-ce que loolu. loolu dafa ñaaw ku nekk la ngay fanaane ci sab néeg bëggoo ko loo ko séewal nga xëy nag di séewal jàmbur bi nga ànd ak borom këram lu rafetut lu ñaaw lu yàlla sib kenn bëgg ko mm-hmm. waaw euh, ci wàllu sëy mooy di sama doom mhm. di ñoom ñëpp di sama parce que ci loolu la ñuy ñëw tey démb dégg nga ni ne am na sax ñuy annoncé naan dafay arnaqué di nax nit ñeeg nga ni ma wax ju ñaaw kenn du ko parce que takk na kii rek moo tax ñuy sulli ay mbootam moo tax ñuy sulli mbootam di ko waxal lu ne ñu di ko waxal lu ne ko doon def jarul wax jarut a wax as góor du du yàq doom jàmbur as góor du yàq jàmbur mhm. dégg nga defaluma lu ma gis loolu du dëgg yow ku la defal yàgg yàlla ku la defalut yàgg yàlla ndax kat dërëmam nit ñi boo ko lekkee tëdd ak moom ci bàmmeel na la leer ne dina la sonal na la sonal de Ablaye Diop xaas ak mboolem xale yi nga xam ne ak keneen ak ñëpp a ci yem ba leen doomi jàmbur yi kenn ku nekk sa sa xetuk pokkataan war na laa doy ñetti fan mi bàmmeel day dikk coow yi ñuy wax nee na euh, waaye mais ba léegi ci si seen i mbokk yooyu ci seetkat yi am na ku ci taxaw naan sëy bi du yàgg mais des fois ci yéen la parce que ni ngeen di toog comme yéen ay mag ngeen toog di dégg xale yi di foofu seet gi. parce que tey toog ngeen dégg ni ñu am ñuy taxaw neen ay étranger la ñu naan euh, dañuy seet nga ni ba pare ne seet petaaw dañ ko sib lu waral loolu. petaaw ah dëgg la dañu ko sib de waaye araamut ndax petaaw moo feeñaloon ngeen ji mbindeef li tax ñu sib ko mooy loolu petaaw ba nga xamante ne ngeen ji mbindeef denc na ah, dem na ci xunti ma jargo ñëw kii ci Euh, lindi fa tàggum piccax ma ñëw tàgg fa ba ñu demee ci borom xam-xam ceet ba ñu génnee pitaaw yi dañu ko génnee ne ko béréb sàngam la ne looloo tax ñu si pitaaw waa pitaaw ku ko xam dëgg dëgg benn pitaaw bu ne day wax boo beesee benn yoon rek mën ngaa bàyyi benn bu ne day wax ci wàllu rab ak jinne ak seytaane ci loolu la tënkee mais avant ñu ci ñëw euh, ndax ki doonut loolu wala tey yoruloo ay xamb wala xamoo ci affaire u jinne wala rab mosulaa wuy si est-ce que di mën a seet ay mbir nit ki ba taxawal na ko génn lii ak lii. boo ñemee sa borom yàlla nag boo ñemee yàlla lu ne nga ne mën naa ko man su ma neexoon ne mën naa lii mën naa lii waaye leen li ma mënut duma ci dugg te it loo mënut mënoo ko leble man lu ma la wax damal naa bala nga maa fay dangaa teg bët boo gisut bu ma fay. amee maak te it soo gisee sax te nga génne say sarax boo gisee li nga bëgg yaay seet la sedd sa xol nga jox ma ko waaye niw ma kenn jox euh, loolu moom doyul ci wér wane xam-xam à euh, beneen bi ñuy ñëw moom mooy ba tey ci wàllu seet ci wàllu rab euh, ndax li lay waxloo naan la nit na génn lii wala na génn sàngam parce que bu doon loolu ñëpp seet. alors am xam ne boo mu tëdd ko tufli ko sa loxo di joor lépp lañ lay wax loo nar a gis ak li ngay gis lépp ci réew mi dañ naan nangam ak nangam dina am. Mhm. waaw danga koy seet ñu wax la ko ne la nangam ak nangam day am bu subaa génneel sarax sangam bu subaa génneel sarax sangam defal sarax sangam nangam. des fois it nga am ab àll ko for nañ ko ci woyu béykat dee nañu ko des fois mu dal saltige bi nit mun na laa woo sax nga jaar ci trop. duma la laaj saw tur du la laaj dara waaye boo dee aloo ma ne allo nga ne ma damaa bëgg nga xoolal ma ne waaw di ah su ma neexee dinaa tudd aw turam ne ko yow euh, yow diw mii diw nga tudd. waaw diw nga tudd. ci àll lay dikkal nit woo la téléphone ak fu ma mën a boo nekkee ci àll dëgg bu la neexee nga tudd turam. li tax nga toog ba yàgg ngay naan nga doon àll nga daa nga daanu sarab naan ñaari paani ndox ku mënta naan benn potum ndox naan ñaari paan sangoo ñetti paan ci saa si nga gis rab la dangay naan di ñi lay ñi lay dimbali di la naan le mais seet daal maanaam du ay fo. mais léegi gis nañu gars yi dañu bari léegi bëgg ko def. foofu moom la ñuy foyee ndax alal ji ah waaye alal la leen jiital rek. Mm. waaye lëf daal boo ko mënee dëgg dëgg dëgg danga koy leble waaye loo man dëgg danga naa ko demal ba gis li nga bëgg. ci jafe-jafe nga ñëw bëgg nga bëgg koo nit sonn na ne ci jafe-jafe nga ne ko jox ma nangam mu jox la ko mën naa am mu gis mën naa am na bañ man jooju àq yàlla bu ma ko am ma ko sax xalaat. mais est-ce ko leble du ma ko leble du ma sarax seet sarax du ma ko leble seet du ko leble waaye bu ma la seetalee li ma lay diggalee sama liggéeyu bopp man ngaa dem ba gis li nga bëgg nga door maa fay ok Tounkara du tee ñuy nataal maanaam que wax na ni ne euh, set kenn du ko euh, fowee du ay caaxaan te gis na ni xale yi dañ koy fowee mais que amul danger. ah am na danger di. ci koy fowee dañoo xamul. dañoo xamul rab. ku koy fowee ay rab wala seet ci yëfu jaamur te moomuloo ko amuloo tuur. Ah. ëllëg mun naa dal sa njaboot. ci yow dal ci sa day dal ci yow mbaa mu dal ci sa njaboot. gis nga lii xam-xam ak dono la xam-xam ak donoo bokkut ak looy dem di foraatu waaw. boo ko amul daal ci say maam baal. jaam ngi leen xam-xam te seet meneen mi ci mbaa ngeen dem mu teg ko ci fu wóor ngeen di ko def. daal dafa leer ku faj ren ba déwén. noo kon mën nga li ngay def. ku faju ren ba déwén nag. ñu xam ne li ngay wax mënoo ko. d'accord léegi beneen bi ma bëgg ñu ñëw rek daal di avant ñuy tëj émission bi moom mooy ba tey ci wàllu rab ak jinne rab dafa mel ni bëri na lu muy def ci nit ci wàllu yàqu-yàqu parce que des fois ñu déclaré nit naan dañ koo liggéey wala dañ koy xeex wala nangam alors que àndandoom la neexulul sax fois moo waral yëfam di dëgër bu la laajee bu la laajee weexal am na ñoo xam ne dañuy am rab ba noppi di ko bañ soo ko bañee nag bu la meree daal dikk ci yow waaye boo ko day daal dindi te dalay jox xam-xam la ñuy tuddee neexal ah seet la xamoo li say tuur li nga da ku ne ko am xam-xam kay bay seet war ngaa xam li say rab bëgg nga neexal leen ko waaw war ngaa xam li say rab bëgg nga neexal leen ko. moo waral tey nit woo na la seetlu nga ne ko defal sarax sangam mais est-ce que am na droit. man ngaa génne sarax ba sax li muy seetlu aajo aajo daal di faju sarax muy jot dara. balaa moo jot dara aajo mën naa faju ndax sarax ba muy laaj. bu ko bu ko ay rabam bëggee bu nangoo sarax ba rek balaa yëg balaa jot li muy lijjanti day faj day faj léegi ba ñu ñëw ci beneen point maanaam ci wàllu yoon ak li nga xam ne mooy wàllu samp loolu tamit dañuy faral dégg ci saltige yi ne fal gaaw nañ ci trop secret fal secret fal nag loolu am na secret fal dafa am am na ñoo xam ne duma tudd seen tur mhm. waaye wallaahi billaahi kii ngeñal jilit ñu ngi leen di dégg di leen gis di leen seetaan dof bi Fatou Ngom Dof saltige bii la. ñu ngi leen di xool ci télévision chaque fois gis leen ci yenn post yi moo xam directeur moo xam li nga xam ne mooy poste ministre. moo xam xëccoo ña nga ca wala bëggoon poste jàmbur fexe ba jot ci te yow mi loolu yëpp da yàlla def na ko fi xamuñu dara nag mënuñu dara waaye wéeru nañu ci yàlla ak yonent bi ci barke Serigne Babacar si mënu yaakaar ndax lu nu am mooma lu nu xam mooma lu nu amit ci moom lañ ko jëlee. d'accord ok beneen bi ma bëgg ñu ñëw. moom mooy lu ñu naan spécial ci la ñuy wax tëj émission bi parce que barina lu muy saafara avant ñu tëj wàllu bi yoon mooy li nga xam ni parce que ku mu fal nee na moo lay garanti doo dugg ci kaso mais avant loolu mooy wàllum njurum doom Sénégal yëpp seet am monde bi sax laay wax fii ba États-Unis nit toog na fukki at juróom dégg nañ ne am nga fukki 14 euh, turandoo. waaw li man kay li ma am ci turandoo kay mënuma ko wañ sax am naay turandoo doole te ba ci koo xam ne. da ngay am doom loo amuy góor loo amuy góor te nga bëgg jigéen am na loo xam ne boo ko defee bu soobee yàlla bu ko naanee daal di am doom bu jigéen bu dee jigéen it noonu. non attends man dama waaru maanaam tey koo xam ni am na problème mu doom sax doom bu jigéen am na secret woo koy ñaanal woo xam ne yàlla dina ko may doom bu jigéen. am naa turandoo Pël Fuuta fii ci Grand Médine fi ma dëkk te yaayam daa jur lu mat fukki bopp lépp ji góor may jaay di tax mu dikk fekk ma ma toog nuyu ma. yaay jaay mbaaw ay waay yaay dama am ëmb te mënumaa am jigéen mënumaa ma xëy ba am jigéen ma ne ko ah, boo amee jigéen tudde ma ko mu ne billaay barke Seydina seen sëriñ tukulóor yooyu billaay bu ma amee tudd ko faatuma ma sëy na ba am doom loolu daal maanaam dafa mel ni may may la ci yow moo xam ni nga taxaw moo xam musuloo am doom am nga ci secret traitement yoo xam ni koo ko defal bu jur dama ko ko daa def fanweeri dërëm la ko daan fayoo fanweeri dërëm booba aw nag lay jar te man sax laaju ma nag ndax nag seer na nag dafa seer te ba ma ne jàkk ne man lii may def muy fan fanweeri dërëm diw nag leget ak sunguf lañu ko daan jox boo amee doom di nga joxe leget ak sunguf di nga joxe tëppetab diwlin di nga joxe tànk xar ak la koy togg sobleeg diwlin waaye du ko weesu ba ma ne jàkk ne ma dinaa ko fi baag yow de joxuma ko sa yaay joxuma ko kenn waaye lii ma la ci wax boo ci seede yàlla boo ci am la nga bëgg waaye yaakaar naa daaw ba ren yàgg na te maa ngi ci. d'accord ci wàllu wàllum juróom doon daal ci dernier point bi mooy que ni euh, koo ci jëflanteel ci kàttanu yàlla bu awee fa muy aw rek. nga nga yàlla yàlla may ko doom. yàlla may ko doom bu ci yàlla àndee ndax yàlla wax mu yàgg sax yàlla la neex. mais moo indi taxaw bu yàgg rab la wala. rab da koy def rab da koy def feebar da koy def ci biir parce que am na jàngaro joo xam ne day la day fatt bu tuuti njurukaay. garab googu bu ñu la ko joxee nga naan ko da koy raxas ba mu set di fóot ñaari yoon mm-hmm. ba ko ñettee dootoo fóot d' accord jërëjëf mbokk yi mu nekkoon saltige Fatou Ngom beneen point bi ñu ñëw rek mooy ci wàllu bi yoon euh, am na ci lu bari loo xam ne yaa ngi koy liggéey jaaro ak nombo mais wàllu kaso dëgg dëgg dëgg nee nga xale bu jaar ci yow ci kàttanu yàlla mu doon ko jub bu jaaree ci man du mës a dugg kaso même buñ ko jiiñee leen waaye bu baax kuy def lu waxuma nag koo xam ne da ngay dem tooxi doona wala ngay naan wala ngay def lu bon ba dikk ne ma damaa bëgg ku du ma aar ma bu ma def ak kaso bu mm-hmm. ma dugg kaso déedéet xam nga lu ma man mooy su fekkente ne yow mii jubadi woo mm-hmm. dañu laa tooñ bëgg laa ëpp doole dugal la kaso mm-hmm. loolu moom yàlla mën na ci saafara am li ma xam ne bu ma la ko joxee ñu def ko ci mburu nga lekk ko mbaa nga ñam bu ñu ko def ñu nga dugg kaso ñu def ko ci ñam nga lekk ko doo ko fa demee dus te génnoo bala nga maa fay dangaa génn kaso ba paaka du la dugg balu fetal du la dugg doo dugg kaso sa jaaro yu ñuy dégg nag jaaro baaraam bi moom boo ko takkee boo takkee jaaro bi doo doo ñàkk de te loo am dina toog te ni nga daan def loo am mu demit day toog incha allah bu soobee yàlla di nga am wërsëg te ku la gis na la bëgg. loolu yëpp information yi ñu jox la foofu la ñuy tëj émission bi euh, fa la ñuy donc mbokk mu nekkoon saltige Fatou Ngom nga xam ni moom mooy Grand Médine Yoff Parcelles Assainies ak fi naan Déli Biram Ndaw ak mooy euh, fi nga xam ni moom mooy fa lay dem euh, léeg-léeg say xam bi Kaba la cosaan nga ne. d'accord lan ngay tëjee émission bi par rapport ak li nga xam ni moom lañ doon jël fii ak looy ñaanal waa réew mi. leen ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér yàlla na fi yàlla jëlee tumuraankeeg su coona ak mbas mi yal na ko fi yàlla jële ci barke yonent bi def defin wu ñaaw yal na ko fi yàlla jële yal na nu yàlla sàmm sàmm bépp jullit sàmm borom réew mi sàmm njaboot gi sàmm kilifay diine yëpp ak kilifay aada yal na nu yàlla sàmm sàmm njaboot gi njaboot gi nga xam ne ñoo fi nekk di xele nga xam ne ñoo nu yor ëllëg yal na leen yàlla jàppale may leen gudd fan may leen ak wér ak kàttan ba ñu am lu mën a yore seeni waajur. jërëjëf mbokk yi jafe-jafe yi bëri na euh, yéen ñi nekk bitim réew sax am bayre bëgg bayre tubaab wala bëgg li nga xam ne moom mooy njaay wala foo taxaw nit ñi jox la bopp fexeel ba mu am sa karaw gi yàlla dimbali na mu tàll beneen bi ci topp it nee na ku nga xam ne yaa ngi am jafe-jafe sa biir néegu say bëgg borom kër am na xajul ci émission bi dañ leen koy résumel am na ko ci yàlla dénk beneen bi ci topp mooy wàllum seet ak wàllum kaso wàllum fal yow mi nga xam ne yaa ngi nekk ci biir néegu sëy mënuloo am doom dégg ngeen lu mu ci wax donc actualité yi waxtaan na ci mu nekkoon saltige Fatou Ngom numéro yi mooy affiché noonu ci bas d'écran bi fu waay mën a nekk ci àdduna soo ko soxlaa ci kàttanu yàlla boo ko wootee saa yoo ko jotee boo ko jotul envoyé message vocal bu ko liiree dina la tontu di leen tax dig dajee beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf